aɗa selli mbiɗa ñawlimiri hannde a ñawlimiri e hannde mi aran pour liggade hannde mi aran pour liggade hmm. joni moy komi haalnoma ko rek mi oppat ko malibuti ko kalis momi mbaɗi ɗo de hiɗa andi de di mbaɗi yakarna ɗa lon mo gën lon moo gën dal mo gën timan mbawi mbaji mbajer sama yoon bob mo gën wona coumba Jóot toogal Kumba andi balaa dem faw def inventaire aneen di d'accord am problème voilà wóolu yow nga def nii kon baax na ko léegi ngay def bu baax a baax. Hmm. c'est kon baax na kon père. na ci tey. ça va woon hmm. naa la père boo leen nekkee ci biir dee leen teg fii wóorul. yow xanaa gisoo gardien bi. waaw boo ñëwee jox ko dara ne ko même ma yéeg ci kaw am lu ma wis dalay bàyyi nga yéeg. kii kii kenn mënu ko def loolu. Hmm. kii du joolaa. bi. moo tax kenn kenn mënu kaa ger. kenn mënu kaa ger. ah kon baax na amul problème. pépp pépp pépp. amul problème. mais moom Dakar moom. mën naa la wóor ci woon. Mhm. pour nga ñëw pour suñu opération ba mu war opération coppet. opération coppet coppet coppet. waaw mais père yow keroog waxtaan nañu fii nii nga ne opération wër ndomb. non wër ndomb xel na moom ñëwagul. Hmm. wër ndomb sax moo koy def général nga koy def. Mm. mais kii dama ko si cop coppe léegi yow il faut nga dem représenté ma fa rassemblé xale yi ñoom ñëpp ñu ñëw toog bu mu toogee alors ñu man ma ñëw su ma ñëwee naa symboliser benn jakarta mm. jakarta bi mm. am loxo pour nga jaar galay mu ñëw ngir rassemblé leen ñoom ñëpp mais na nga leen maîtriser bu ko defee suma opération càq-càq boobu foofu ma présenté wu benn càq-càq ñu officialisé ko. Ah, ah. kujir bi ID hmm? kujir mah dar Ardo ay ha anin Manchester Yeah. ha ah, joni noon a ah, joni a yani solde o ɗo waaw léegi nag ah xaalis bi léegi lu nekk li nga ma jox démb barki démb ñaata la ñaata nga ma jox nu ma la jox koy xam nga ko lu ma la doon jox ah, waaw léegi nag lii des lii solde bi lan <laughs> ala kii ko ada jalan min mi jalan kumba ndaa tan sol wadi mooy un million e goddum un million presque cent mille xaalis moo di yaa neex nag alasollolen hinami kali eh, ko mocito kadi hinami e way samba juumaloon da loolu ko looy sant mu ne wele jooni xaalis maa eh, mën nga ko bëgg a dégg ala sow ko bëgg a jiñ min a sikki comme min woni sa nekk min mi wonen sa nekk de idan di sa nekk yow yow ñaata at maa ngi liggéey ak yow musuma manqué un franc wu Mali un franc un franc wu ko manqué. kumba un nga yow taxaw nga ne ma carrément man maa jël sa xaalis xaw ma un million xaw ma ak nangam man faale ma loolu man fukk yóbbuwuma man doomu tukulóor laa deretu tukulóor daw sama yaram ñaar dërëmu mu soxlawu soxlawuma ko man lu ma am doy na ma sëkk ak barke. baadu lu ma lu ma ne damay bàyyi moo tax nga ne ma nga ngay def sa façon yi. boobu baaxul boobu doxul bu mu dem. xaaral ko gasi joni a liggat ko liggat lan laay liggéey ma la koy dagg ba mu jekk wala nga fay ma kaalis jekk na eh, waayi dëgg la <laughs> yow moo danga maa def ay reetaan min mi waɗani théâtre de anandi ah sikkuɗa ah, ah, ah, a awaɗa min sikkuɗa a waɗa théâtre ni nag vraiment min ma yaakaar ni ni dangay théâtre ndax lii mënuma ko gëm ba tey waaw na yow nee nga woon marché Jakarta man man nga da koy jox. waaw ok écoute ko ma jël nii rek pour commencer ko. loolu lay wax loo xam dama lay tëb mënu ko def yow yaay sama xarit yaay sama genn wàll. ok dégg nga politique la dégg nga daa gëndaa gëndaa. ok sa comprendre nga. naam yow daal yow lu ma déggee nii li nga expliqué mooy da ngay daaj dajale booy yi. léegi wut benn jakarta waaw ñëw xool kenn ci booy yi jox ko ko waaw yeneen booy yi teg seen bët maanaam da leen sexal daal sexal pour après ñoom ñu mën a ñëw non ndànk ndànk ne sax nee nañu buñ ko su ñëw mhm. bu fekkee ñoom bu ñu gisee ni man def naa noonu action mhm. boobu mhm. ñoom dinañ gis ni que dañuy ñëw non politicien bu mag nga yow yow politicien bu mag nga mais dajaleen ma maîtriser leen amul benn problème man maa ngi ñëw quoi léegi père kon yow dinaa woo ma waaw ma ñu dem dajale booy yi. dajale booy yëpp. waxtaan ak ñoom balaa yow ngay ñëw. waaw pour bañ ñu ruube. bañ ñu ruube nag. amul benn problème. Ah, bañ ñu rubee. non loolu amul amul benn problème. dégg nga amul benn problème li nga bëgg dinaa la ko defal. tant que ah, très bien amul problème loolu laa bëgg. de eh Ndakaaru faut les maîtriser de. ah booy garaawul dinaa leen maîtriser. dañuy ñëw foofu du rubee ku ne du tudd keneen. non non bëgg ma ko. non te xam xam naa fi ngay wax. non du duñu rubee dinaa leen maîtriser. amul benn problème de. non coow dinaa leen maîtriser. ok. Ziyaar godi. A booyal. Alam booyal. Waaw la koy ma yeewu. ma ne xaaral ma taw dem ci moom di wax ak moom. ma këpp wala gis nga xool ma sax gàddu ma sax sàkk dem di waxanteeg moom. mënuma tere avant nga def foog ñu def inventaire ba pare.

te man wax dëgg yàlla Moodu suur naa ko àddina ak àllaxir na dem ma dem soit xaalis bi ngeen ma jox laay jël jox ko ko. doo ko fi jox la téye si wetam lay wër. yow xam na ni jëloo non xam na ni jëloo un million jëlaanoo xaalisam. allo Mody ça va tey tongoon la <coughs> waa baax na ko doon am comme soxla doon waaw ok baax waaw baax na yow léegi maire su ñëwee wax ko jaaroon dina ko déglu. mais yéen gis nga leen non dañuy ñëw yow nee woon nee naa la ah. ci ñoom yow ñoo ànd. loolu nga wax de an pare nañ carte d'identité yaa ngi suñu poche. waaw ah, baax na kon naa leen wax loolu na incha allah dara incha ça va def. maa ngi sant yàlla ah, kon da nga ñëwoon yi. lan moo si sa yoon. Euh, non dara dara c'était juste rek euh, dama la gis côté yi te man tamit ma ñëwoon côté yi nii moo tax ma laaj la d'ailleurs sax li euh, occasion la parce que dama ne woon dinaa ñëw sa kër. yow nga ñëw sama kër. oui lan ngay wutati sama kër. d'abord pour jéggalu la. pour jéggalu la ci li ma wax ci li ma bind. yow balaa ngay bind est-ce que vérifier nga sa information un bon journaliste day am source su paree vérifier information soog a publier mais yow loolu yëpp defoo ah yàq der rek ngeen fi nekkee. moo tax may jégalu xam nga peut-être euh, ñi may liggéeyandool source yi ma am peut-être ñoo ma jox fausse information rek te vérifié wu ko. waaw ça montre que tu ma ne tu n'es pas un bon journaliste. maa ngi excusé wu encore une fois. da nga da nga ñëw pour excuse. day yomb torop du ma ko mënee noonu kañ dem kër buur. buur ñëwal ñu dem kër buur doxal. alhamdulilah hmm. yàlla baax na. ñaan yàlla guddal yaa rabbi te yàlla boole ñu ko. allahumma amiin. salaamaaleykum. salaam. waaw waaw na nga Maxu wala boog naka nice. waaw ñu dem ko. waaw xanaa xaw ma ba bi jot na ñu ngi de. waaw. Maxu di dem gàncax. heure la kañ dem. père baal ma loolu nga ma fekk fii. saa yi boo transhumé doo assumé. waaye lii day affaire de transhumé affaire de nit la nga may wax affaire de transhumé. saa yi ragal féete day xañ a de. rage sër day xañ a wërsëg bàyyi yii saa kenn du ko wooy doo ñëw fekk ma fii man doo ma de lu leer laa doo ma saltel non eh dama maa ngi ñëw waaye ma ko gëmal sa bopp nag nga naan ma la maa ngi ñëw la may cinq minutes maa ngi fii taxaw di la gëm sa bopp eh, man su lu ma dugg nii ma waaye yow li nga def noo ko bari kum bu rek ni ma dafay bay lu lu ah jaadu na kay waaye loolu tax nga jiñ ko sàcc. wax nga dëgg ay man ni woon rek laa mënoon def pour téeku mu sama wét. moo ku la nobul da nga koy bàyyi mu dem yaa ngi dégg lii yëpp warul woon. su ma ko bàyyi mu dem dootuma ko gis. mu bañ mu sori. baax ala accu accu mi sonal ma boosoo kay. kii sonal na ma. billaahi. benn affaire moo koy lijjanti mais ay xaaja guddi la may woo dafa maa woowa woo kii du nit sax magum jëmm jéemoo mën lijjanti sa bopp dara lépp da la koy lijjanti ah non kii kii kii xam nga lan laa la bëgg a xamal yow magum jëmm tu es assez grand et puis tu es libre de tes actes tu es libre de tes choix am nga droit choisir camp bu la neex nga ànd ak moom gis nga fii lay far walla fii ngay far par la force di wut nit ki fan ban camp la war a far kenn amu ci droit tout un chacun est libre de ses choix mag nga mais nag kantaa nga toog ak man ni danga may sëlam amoo ci droit parce que bu boobaa day dugal manque de respect et que tu ne dois pas me manquer de respect parce que je ne te pas de respect ankay yow def nga li ngay def wala bëgg ngaa def li nga bëgg a def demal def ko libre nga waaye après toog man maa la laaj yi ngay wax yëpp laajuma la ko jël si nga la pour ngeen dem demal man ba man ba ma xamee ne dem nga yàgg na xam naa ni dem nga bu yàgg demal rek ah. gisee du yow su ma su ma su ma su xarit nga su ma waajur nga du ma la nëb. waaw kon bul ma fen li nga bëgg a def demal def ko rek. non du loolu. wonan ma fi fan yee wax ma seen ay waxu dof yu kenn xamul ay dama bëgg nga ñëw jàppale lu si lii xaw ma mais ba tey nangu ma nangu ma ba proposer ma benn un million mais dama ni tamit yu mel noonu du ma ci dugg te laajuma la sa xalaat. man awma ci xalaat. un million pour détruire ta vie. walla un million yoo xam ne da nga koy hésiter jël pour bafouer sa choix bu la arrangé demal c'est ton affaire. xoolal ñëw daal man daal man daal jeunesse Sénégal bii daal jaaxal nañ ma rek ñu lay jënd ci un million nga yàq sa avenir. puis dañoo mën a fen mën a fen goo xam ni c'est inouï daal man daal lii daal man xaw ma réew mi fu mu jëm rek ay yàlla eh, lu mu bëgg mais ci kii wérul yow. yónnee naa wér na. def moom lu mu def nii xamul dama koy dama koy gën a jéppi di. waaw. du ma ko sax bloqué bloqué du ko bloqué la yomb dama koy bàyyi muy woote ma koy wuyu nii ko gis te du ko jël kii wuyul nga xam maa gën nekk ko yu fukki yoonu juróom-ñaar alal daf ci kër yi dala xel fa nekk ak ñu wér. te bàyyi ko ñu woote waat. te waaw dama. ah Talla. ma ne la toog ma si woon. mais Talla. temps yi dama bëgg def démonstration de force. waaw jënd naa ko waaw. jënd ko. mobiliser xale yi. xale yëpp ñëw. ndax man dama yoon as goo xam ni dañ leen ko a jox. yaa ma gën a xam. xale yi moom boo leen joxul xaalis. duñu ñëw. de sama ndeyjoor efficace na sax moom ku baax la efficace na trop mais boo ko joxee. day def lu caay. sa ndeyjoor waaw noonu ngay wax. taxaw il mm-hmm, ko joxee. Mm-hmm. day mañax yéen nii yéen ñi mënu caay ni mm-hmm. xam nga. te loolu moom. moo tax ma wóolu la. waaye yow laa fi woo ndax yow jub jub nga te loolu la joxee loolu nga koy defee ma bëggoon na xale bu nee mhm. ma jox la nga jox loxo junni loxo junni loxo junni mu def mobilisation boo xam ne mhm. ñëpp dinañ ñëw mhm. dégg euh, ak euh, sama euh, kii cag-cag yi mobilette jakarta yi mun nañ ko jox ñëpp ñu ñëw def mobilisation de force ah, ñu wane suñu bopp maanaam daal si mobilisation bi nga bëgg a génnee jakarta yi ak ceg-ceg yi ndax daal ko jox daal ko jox les waaw ah, d'accord waaw dégg naa mobiliser mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. ñëpp ñëpp waaw euh, dégg naa lu baax euh, damel dégg naa bu baax li nga wax Euh, te nee nga man dama jub. dama jub lool lool lool lool waaw jërëjëf si li si seede bi nga seede. dama jub dégg naa nag bu baax li nga wax nag. Mhm. waaw euh, mission bii nag moom nga xamante ni moom nga ma bëgg euh, sant. waaw waaw waaw. mission bi day duma ko def tey du ko def ëllëg. ndax ndax ndax Damel. Mhm. du benn du ñaari yoon nee naa la yow tu n'es pas un homme de parole. loolu ma ma ma wax de du mu bëgg yow nga déggul ma. parce euh. que fii laa toog ak fii ci euh. salle bi. Euh. nga ne moom vidéo bi. kenn du ko gis. tey vidéo baa ngi nii ñëpp a koy partage. bés bu ne nag sama téléphone la ngi sonné. ñëpp a may woo nag. ñëpp ñëpp a may woo. vidéo yi man ñaar laa yónnee. ñaar nga yow man damaa commencé gul sax. waaw commencé commencé na. da damel commencé la. commencé na. vidéo yi nga yor génnee ko nga publié ko ñëpp a gis ko. national international. waaw bés boobu nag. moom laay wër nag man waaw may ma bës may ma bës waaw